yor flamme bi quoi taxawee à côté mooy cocktail bi mais mi ngi takk flamme quoi mais man booba man comprendre lu ma ay sept lan six bon bi client bi wàccee nag si la si benn si la copain bi profité daal di lancé affaire bi si biir oto bi bi mu ko lancé si sama tànk bi fii nii si pédale bi la ko lancé moom moo ma def nii sax bi mu ko lancé noonu nag si la affaire bi daf flamme bi mu flamee bon client yi di profité di jaasi fenêtre yi di wàcc ñoom ñu ñu daal di pincer porte bële ndax ay ponkal lan la danoo njool ay ponkal lan te danoo camouflé donc seen bët yi rek moo lay jox image te bu ñu waxee yaa ngi koy dégg ñu pincer porte bi porte bi ubbeeku am ñu daal jël si biir xam naa jël ay téléphone ak ay saak man bi ma wàccee maa leen seen bi ñuy bi ñuy yéegaat passerelle bi demoon maa leen seen